Hallelujah. اللهم إن القران العظيم ربيع قلوبنا وجع احزاننا وزهد قيومنا وخائبنا وزائفنا الى جنتهم وقوم بالعافيه خذنا وعافنا وجل الى رحمتك مصيرنا ومعالنا واصبر سجال حفظك على جنوبنا ومن علينا جنوبنا اللهم الحق حقواك سادنا وزقنا بك صغرنا واحتقارنا وعن من جهه والقفي بلادنا وزائر بلاد المسلمين امين يا رب رب العالمين يا رب العالمين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرناه ونور ما قرناه بنور سيدنا وزبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأرواح أبائه وأماته وأزواجه وسرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأرواح أبائنا وأمهاتنا ومسائخنا والألواء جميل جميلا والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خالد الدين وأمان وإمام المسلمين سبحانه وتعالى رئيس الأمانة والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين. آمين أحلل آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرا وصف بالقلم من شر ما خلق ومن شر حاجر اذا وقب ومن شر غاسق ومن شر غاسق اذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم اقرا وصف بالناس والناس للناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في الناس والناس الله لا اله الا هو الف يوم خلق وسوسه لنا كل ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يصفو الى عباده ويعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه الا بما شاء وسع السماوات والارض ministre bu fi nek di ministre collectivité territoriale jox nañ ko sunu doléance bo ba légui ñu ngi xaar kéro yaakaar naa audience ba képp ku fa di kon bég man na lu tax ma bëgg ba mu ñëwé dafa ni man Kébémer la bokk ni ma ñoo sall malé ñoo bokkul lépp mané man na kon sax ba fa am tay kon président na la koy santé bi nga njëkk da nga wax ne yaa ngi waa Kébémer leen gars yi ñun su amee ndam Kébémer am na ndam keroog audience ba nga leen duma leen dig mais incha allahu danaa ci taxaw danaa ci dox danaa ci wax ba seen revendication ngeen am satisfaction duma leen dig nag ñu jóge fa nga def teraanga yu baree baree bare yu yu mag a mag a mag yu rëy ñu ci santaat parce que man li ma neex soo toog da ngay doon sa appartenance Kébémer muy fierté nak muy fierté ñepp kere bi ñu fa jógee ñu dem tok ko de suñu revendication ñepp gi ñuy dégg mais yaakar na keroog ba le président di signé décret ba yaakar naa gis na tànk yi te dox ak la ngay def ban am ko kon loolu loolu ci yow lañ ko amé kon la ci sant la ñaan kon del lay ñaanal kon li ngay sumbu yaanal ci yalla yombalal parce que lo doon doxul depuis 2014 yow nga ñëw en tant que ministre mu jaar ci yow kon dama ne yow jing nga département kemer mais jing nga adjoint maire kon muslimis kontan nañ ci lolu dama la wax sama adjoint man dama bokk bureau national mais dama man maay sen président parce que ci sama ministre té len amé ñu liñ bëgg ñu yok indemnité yi dama tudd liñ yokal yokkal ñuy sant sun borom bu baax ba mais jé sant nak statut ya ngi ci dox xam nañ tank yi ci taxaw kon nak le président mu ñu kon tay bañ la sargal bi ni ñew adjoint maire yépp ñepp wax dañuy ñew tay jii yaakaar na su leen joxoon parole li ñu wax yëpp sax man mënu ma ko wax kon nag tey sunu ndam nga sunu fierté nga parce que da ngay lu yomb lu jafe nga politicien bu jafe nga xam politicien bu jafe mooy politicien boo xam ne ku la bàyyi rek nga mer ko yow koo jàpp doo ko bàyyi sa xam koo xam doo ko bàyyi te loolu mooy nit da ngaa nite kon monsieur le président ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant bu baax ko am reconnaissance gi ci nit nga. dañ koy adjoint maire dañ koy wax dañ naan monsieur le ministre fa mu la gis lu mu tur dana wax sa tur dana jaax tur ba dal dana tappaas nga ànd ba nga ko bañ a ànd loolu mooy politique da nga xam le sens de la politique kon monsieur le président ñu lay sant bu baax a baax adjoint maire yi neen ñu ngi lay gërëm amul sa fay kontaan nañ ci bu baax a baax a baax mais sànq dama toog mon ami sama frère ki nga xam ne maanaam magam sama nijaay moo ko yor muy monsieur Ndong mu ñëw nuyu ma ñu sama xarit mu ne ma le ministre maa ngi ci cabinet bi en tant que conseil technique maa ne ko ah wut ak monsieur Diagne Fade bokkut ak ministre yi nga xam suñu amee ministère ñoom sax dafa nekk ñëpp wax vraiment liggéey bi ngeen liggéey muy suñu fierté muy monsieur Ndong sama mbokk di sama lépp kon monsieur le président au nom des adjoints au lay sant ñu ngi lay gërëm tey dañ waxoon mënuñu woon a ba ne ñëw tey ndokkeel la sant la bu baax a baax a baax xam naa ñi ma yebal bëggoon maa wax ëpp loolu mais peut-être mooy bëgg laay tënk. nuyu. le xalif général bi nga xam ne moo fi wuutu maam Thierno di nuyu njaboot gi yëpp président di la nuyu bu baax di kontaan lool di am kontaan te di la gërëm nag di la ñaanal di la sant mais président balaa may del si si yow dinaa wax si waa LDR Yeesal maa ngi leen di nuyu ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di kontaan lool nag si jigéen di kontaan si ni fédération bi di doxee di nuyu Adja Soxna Sall la présidente nationale bi nga xam ne moom ak Adja Awa Dia ñoo koy ko di ko def nag si anam bu gën a rafet macha allah ñu ngi dox ñu ngi waxtaan ñu ngi déggoo ñu ngi defar. man nag dama ne man jógu LDR Yeesal laa am ndax LDR Yeesal dafa mel ni doom si man képp ku bëgg LDR Yeesal rek bëgg naa ko képp kuy liggéeyal LDR Yeesal bëgg naa ko ndax ku liggéeyal LDR Yeesal yaa ngi liggéeyal Modou Diagne Fada te Modou Diagne Fada dafay leader bu baax leader bu jafe si leader yi dama ne Diagne kuy wut leader bu baax bu yemee si yow na taxaw ponk nga ñi ngay liggéeyal bëgg nga ñi ngay liggéeyal sonn nga si ñi ngay liggéeyal lu waa LDR yeesal xewle moom yaa nga ca bu dee ngénte yaa nga ca bu dee takk yaa ngi ca xew bu mun leen doon muy xew wu ak xewu bànneex yaa ngi ci di ñu wéttali nag di leader boo xam ne dañuy wax daal les gens ont l'habitude de dire que ne seen leader yi duñ leen gis mais yow euh, lider bu jege say militant nga di ngay waxtaan ak ñun di ngay kii li ba gën a neex nag ma di ko wax tey jii si daaru bëgg gi nga bëgg waa daaru ndax da ne yow daaru rek nga am te waxoo ko da koy jëfe feet religieuse bu nekk yaa ngi koy defee daaru xam nañu que ni tamit say waajur ñu ngi leen denc daaru bu ñu amee militant bu bees wala militante bu ñëw si parti bi bu nee daaru la dëkk ñu ne ko président de dina kontaan ndax ku dëkk daaru mu fonk la donc yow da nga fonk say ñooñ fonk dëkk bi bëgg maam Thierno ba mu jeex bëgg njabootam donc man damay wax que ni dañuy wax que ni Modou fa Fada de saa yu demee élection daaru macha allah da koy gañe ndax ni nga bëggee daaru noonu la lañ koy delloo bii nii si élection bi ñu daan ne ah bii de nee nañ gañewuñu ma ne gañee moom day gañe ndax bii dafa nekkul si list bi te bu nekkoon si list bi waa daaru list ba dañuy gañe moom nañuy voté ndax yow waa daaru xam nañ ni nga bëggee daaru xam nañ ni nga fonke daaru xam nañ ni nga fonke nitu daaru ba pare rek ëlbëtiku fonk koo xam ne yaa ngi liggéey ak moom donc dañ lay ñaanal yàlla na sa jàmm yàgg si suba ba léegi xolu nit ñi dañoo tooy ndax ñi nga xam ne mooy ñoom Birama wax ndañ la lu nekk jooy nañu te sa géwél bu waxee ak yow ba jooy nga xam ne kooku lañ ko defar rëy ma mu wax nag ñëpp di ko doxee di ko waxee donc ñu ngi lay gërëm li la sant di la ñaanal fi ñu bëgg nga yegg yalla la fi yalla yeggale te bu la fa yeggale yalla nañ dem nee nañ na nag président dafa dekkoon Joal ko dem Louga ko dem wacc wàcc Kébémer bi ñu ne mega fat bu ñu ñëwaat yalla nekk daaru te bu nekkee daaru xamna naa wa waa di dañ kontaan ndax dinañu ngi ñu ngi lay nuyu bu baax mais nak di kontaanaat rek sama ñaari rakk yi yàlla leen yalla la fa sat cër ji ngeen mën a maye yàlla na leen ko yàlla delloo yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla tàppe seen xol yi jigéen ñi góor mag ak ndaw maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ñëpp mbuguma lim nag ndax bu ma limee damay juum mais en tout cas kontaan nañ yàlla na yàlla def jàmm président fi nga bëgg a àgg yàlla na la fa yàlla yeggale te bu njëkk la ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp encore une fois lii nag moom jigéen ñi rek mu ñoo def benn geste ndax xam nañ ne daaro nga fonk te li nga fonk daaro yaa ko nee nga bu ma ngëntee bu may ngënte bu ma gisul kenn du ma mer bu may seetal bu ma gisul kenn du ma mer lu xew bu ma munti am bu nit ñi ñëwul du ma mer mais daaru rek laa am moo ma ñor ku may lebal nag ma lebal si daaru ku may fay nag ma fay si daaru donc si jigéen ñi def nag délégation jël kaar bu mag ndeysaan ñëw fekk la la def rek benn kii boo xam ne geste bu ndaw la rek incha allah di la ñaanal yàlla yàlla nga motaleeg jàmm mais kontaan nañ si yow vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaanal ñëpp encore une fois jërëjëf. ndax bu ngeen ne ànd ngeen mu jañ fada ci mbëggeel gis naa ko man tax ma bëgg leen Sénégal gi xool leen naw leen da a bëgg da ngeen a bëgg kii te triché leen ko ànd bokk ndey bokk baay. ñi bëgg woon a ñëw sax bëgg nañoo ñëw ku duggul woon danga naan dugal ma département Kébémer gépp ngi ni toog waa Ngourane ngi nii waa ko Cheikh de Diallo Seck ngi nii toog tubaar fakkaala waa nii waa Sagata ngi nii waa Touba Mbacké ngi nii waa Mbacké ngi nii Sénégal waa Colom Fala ngi nii Ndaat Fala ngi nii tubaar fakkaala kenn ku ma lim juum waaye moo jañ fa da lépp loo def yaa ko def lépp looy fay dan lay def rek nun mënu laa fay jigéen ñi mënuñu laa fay ndax yaa dajale jigéenu senegaal yi nga xam amul woon fu nu jëm nga jël leen uuf leen sa naqar di sa naqar seen bànneex di sa bànneex samba pend mi ci njob loolu desal dese dara teral nga góor teral jigéen teral mag teral ndaw teral kilifa yi sama waa ji kenn du yow ci mim réew sa andi daaw yaa ngi nii toog dese la dara sama waa sama waa moo leen bëgg bëgg ku ngeen ko bëgg moo jaan fa def bëgg na leen ko yéen lay bëggee yéen lay xool yéen lay nelawa yéen lay yandoore ku la bëgg nga bëgg ko wax ko looy xaar teraanga ji yaatu na waaye yëggee ko ëpp doole ndax fa daal lu ko waay defar rek gisu ko pare na bu yàgg li muy terale ay nitam ak ay xaritam ak àndandoom ak taalibi sëriñ si maam Cerno Birahim Mbàkke it pare na bu yàgg waaye da ngeen yokk nag karaw gi ci xar mi yokk cere dolli ñeex kon mu jañ fa da Samba Penda mi ci njob sa jigéen ñii dañ lay yàlla fa nga bëgg egg yàlla nga dem palais yàlla dugg ba yóbbu la palais de république du Sénégal ndax ñii nag tànk yaa ngi taxaw ñu ngi taxaw dina ñaanal yàlla gudd fan yàlla leen wér yéen ñëpp nag sans exception amul góor amul jigéen Sénégal gépp laa gërëm département bépp laa gërëm Ndakaaru Njaay tubaar fa kàlla macha allah gisuma kenn koo xam ne gërëmul la man mu jaay fa da moo tax ma ma mel ma dem ñu ma maag yow à vivre duñ xuloo pare naa am enveloppe banque yi loo bëgg moom laay defal. ñun nag euh, suñu teewaay tey lu bari da koo waral waaye mën nañ cee jël ñaar bi ci jiitu mooy dañoo bokk Daaru Muxti ndax euh, ànd bi ñu ànd ak le président Modou Diagne Fada bi ñuy xale ba léegi jural nañu ñu am fi ay wëllëre wëllëre yooyu ñu fi am jural ñu ñu am fi wasila. nga xamni moy mooy sëñ mbake mu sëñ mustapha absa mu sëñ modou aw balla moom mufti moy sunu yaakaar tey ak Benen bi ci top moy dañu and ak ko xamni bi da ko yamul la ben bes. wax nako legi neena mën na xewle lu ne bu gisul kenn mën na baña yegg fenn waye bu bésu daru mufti amé képp ku bok ci mom ba sañoon da lay gis ci wetam loolu it ñu xam ko ci moom wax ko jëfe ko ma waral man Babacar fay di responsable des jeunes du parti les démocrates réformateurs and ak délégation bu rëy rëy rëy and ak la présidente de la jeunesse féminine Diariatou Mangane avec une forte délégation ñu ñëw jëmmal si suñu président anda ak mom ndax tay li day firndel ni and biñu and ak mom dafa rombu politique ndax tay papa la ci ñun jaay la ci ñun mag la ci ñenn ñi li muy ak ñun dañuy wan aduna, diñu préparer suñu aduna te ku lay préparer aduna mo ngi lay préparer sa lahira donc bëss bi tay bu dé bésu diiné dañuy and ak mom nu raw ni mi ñi andé ni ñi andé ak mom bu dé politique tay weesu nañoo moom tey politique ndax tey ku la féete fi mu la féete jàngloo la yar la xamal la àdduna di la accompagner nga pare ci loolu mu utal la looy terale say wajur utal la looy sagale say mbokk utal la looy sagoo man ak samay morom ñi ñu àndal kooku tey mën naa wax ni sunu relation romb na politique moo tax bés bii tey yoon la ñu ñëw fi tey daa jaaruñu ñëw di ñaan rek di daanelee ci ni képp ku fi indi aajo yàlla na la ko suñu borom saafara lépp li nga xam ne aussi mooy suñu sabab mooy li ñu bëgg di ci dox. di ci wax di ci jëf. mooy xëy def ko président de la république te yàlla na ko suñu borom def. waaleykum